alors Marcel ñu ngi ko doon annoncé sànq ba léegi tey un jour euh, une actu mhm. dañuy génn ci réew mi wax ci situation bu am euh, te loolu yaa ngi ko bëgg a dooree euh, ci benn chiffre. ci benn chiffre mhm. soxna naata mu di téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yi nga xamante ne rek moom la ñu jàpp ne ne qu'au soir du 17 avril 2023 lu mu néew néew kon loolu la ñu wàññi ci ay doomu aadama ci ay civil yoo xamante ne ñoom ñoo jot ñàkk seen bakkan foofu ca ca Soudan mu di benn réew boo xamante ne kon xeex bi. tàmbali na kon depuis samedi passé ca capitale bi di Khartoum euh, ñuy estimer tamit lu toll ci environ dix-huit mille ci ay euh, civils yoo xamante ne jàpp nañ dañuy amee ay gaañu gaañu ci yooyu lee euh, jongante capital bi nga xamante ne moom mooy Khartoum donc bu bu Soudan ñu considéré woon ko pourtant comme endroit bu gën a wóor ca boobule réew ou si kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy belligérants yi daal dañ doon bàyyi xel rek ñi nga xamante ñoom ñooy civils yi waaye taxul jamono ji tàmbali nañ ko foofu ca boobule capitale intense combat généraux yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp doole ci boobu boobule réew euh, mu di euh, ñaari euh, nit yi nga xamante ne ñoom ñooy semer la terreur au Soudan mi di Abdel Fattah al-Burhan ak Mohamed Hamdan Daglo ñu surnommé ko e Emeti kenn ki ku ci njëkk moom di diriger euh, le Soudan en tant que président euh, de transition donc Abdel Fattah al-Burhan et puis le second euh, Mohamed Hamdan Daglo moom nga xamante ne moom mooy diriger les forces de soutien rapide mu di benn puissante force paramilitaire soxna Naata. Mm, alors Marcel dañuy wax ci leneen ginnaaw ba ñu taxawee ci actualité boobu ñu wax ci ñaari camp yi nga xam ne ñoom ñoo seq xeex bi. depuis quelque temps déjà ñu gën leen gestu ñaari camp yooyu noonu bu ñu sukkandikoo en tout ay informations yu bëri yu jot am ñu joxe rek benn. aperçu euh, détail ñaari camp yooyu nga xamante ne ñoom ñooy euh, xeex pour certaines sources camp bu ci nekk euh, ku ci nekk am na lu toll ci téeméeri junni ci ay ci ay nit tandis que d'autres sources ñoom ne neen que armée soudanaise bi moom mu ngi am environ deux cent vingt mille hommes contre environ soixante dix mille chez les paramilitaires ñu waaye taxul ñooñu paramilitaires yi ñoom ñoo daal am réputation ne ñoom ñoo gën a entraîné ak tamit gën a am ay équipement ñoom nga xamante ne dañu am soutien mercenaires russe tamit émirats arabes unis euh, ñoom nga xamante ne dañ leen joxoon ay nit pour ñu xeexal leen ñoom waa émirats arabes unis keroog ba ñuy dem ca guerre civile ba am ca Yémen te mu tàmbali depuis atum 2014 pour sa part kon Al Burhan moom il est soutenu par son grand et influent voisin bi di Égypte Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi et il y a pourtant 18 euh, mois en arrière ñaari généraux ñoom ñaar dañoo formé woon benn alliance manko pour orchestrer li nga xamante gouvernement civil euh, bi nga xamante ne Abdallah Hamdok moom moo ci euh, nekkoon te moom nga xamante ne dafa hérité woon du pouvoir euh, des mains des militaires te ñu daaneloon ki nga xamante moom mooy Omar El Béchir le 11 avril 2019 ñoom ñaar nag lu leen di opposé ay différents majeurs la ñaar lañ ci jot a jàpp naka la ñu mën a def ba intégrer force paramilitaires yi ci biir armée régulière bi waaye tamit kan ci ñaari camp yi moom mooy nar a contrôler soldats yi ak ngànnaay yi a rek un gouvernement euh, civil soxna naata. Mmh, ñu jeexalee Marcel ak taarixu Soudan. Euh, taarixu Soudan euh, moom nga xamante ne benn pays bu nekk ca Afrique du Nord Est la moom mu ngi jot indépendance am en 1956 waaye déjà gouvernement bu Khartoum bi delsi ci promesse yi nga xamante ne daf ko joxoon waa province du sud pour mu créer leen benn état fédéral loolu waral benn mutinerie daal di éclater ay officiers du sud ñoom ñoo ko tàmbali woon mu doon kon le début d'une guerre civile bu amoon diiru 17 ans kon fukki at la daal di de 1955 à 1972 wa euh, ay élection jot a am euh, par la suite en avril 1965 waaye ñu gis na ne gouvernement euh, successif yi ñoom kenn mënul fexe ba rek daal di d'accord ci li nga xamante ne moom mooy constitution permanente bu ñu buggoon adopté waaye tamit résoudre problème yi nga xamante ne dafa am ci li nga xamante ne moom mooy féewale yu am ci biir société bi ak li nga xamante ne moom mooy koom-koom bu demagul woon ba léegi ak tamit dissidence yu jëm ci wàllu ethnie yi mécontentement boobu nag daal di

bu nekk ca euh, Darfour bu daal di tàmbali milice yi ñu gën a xamee ci turu Janjaweed ñoom ñu accusé accusé leen ne dañoo euh, def benn massacre boo xamante ne rey na lu ëpp cinquante mille ci ay doomu aadama le conflit moom en en tant que tel en trois ans euh, daal di rek def lu toll ci trois cent mille morts et trois millions de déplacés et réfugiés selon toujours certaines estimations et puis donc le avril 2019 beneen date ci histoire bu Soudan du Sud Omar El Béchir du Soudan plus destitué après 30 ans au pouvoir euh, ki nga xamante ne conseil militaire de transition moom remplacé euh, composé également de civils on l'aura donc remarqué c'est un pays boo xamante depuis donc l'indépendance euh, il est marqué par des guerres civiles et des coups d'état militaires. comme quoi coup d'état militaire c'est pas la solution Marcel. merci beaucoup pour ces infos léegi léegi dañuy ñëw jàll ci beneen ponk ci kanam tuuti ak suñu mbokk sénégalais Euh, kon situation boobu te mënuñoo fexe ba jot leen dinañ ci dellu siwaat ci kanam léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy euh, de quoi est-il le